ku si mel na kan non rek man ñi rek man góorloo yi rek man guy gi mu ngi fi amul combat ak guy gi non duñ bëre guy gi sa def na déclaration boobu duñ bëre ma ak moom lii mooy yàq lamb nee du bëre guy gi lamb neexatul guy gi du ma gën a gore yaa guy gi lamb daax ko yaa ngi dëkk yof guy gi yaa ngi doo bëre guy gi Moussa pourquoi ça guy gi du ma gën a gore dañoo bokk suñu maam xoolal cere ba ngeen bokk waaw <laughs> waaw euh, maa ngi koy nuyu au passage di ko baalu ak si koor gu baax a baax a baax dama seetaan benn émission euh, benn ama benn benn site internet am na ko jox micro ni ko Moussa Ndoye nag digg naa mooy laaj mu ne non musaan Ndoye laajoon bul wax lu Moussa Ndoye waxul mu ne Moussa Ndoye dama toog sama maam maam Cheikh maam Cheikh Cheikh ma Ahmed Tidiane Seck bu Canaba yàlla na yàlla yokk ay leeram euh, yàlla na ko yàlla. xam nga li muy wax nii fi ma dagg xam nga dama di ko guy gi eh, ñoo bokk Thiénaba Tidiane la man Tidiane Garga Mbossé ñaar yéen a bokk sëñ Babacar yéen a bëri ba mu neex Tidiane du tikki son du Tidiane xam nga bokk xam nga kilifa bu leen taajee man kilifa dafa ma taaj wax ma ci guy gi sëñ Abdou Karim dafa taaj guy gi taaj Ama Baldé ne yéen samay taalibe ngeen teelu ba Ama Baldé fi ñu da ko neex ba mu neex waaw daaw man de ah, li mu wax dameen laaj ko man du bëreeg man du ma bëreeg moom déedéet Moussa da nga bëgg xam loolu waaw man du ma <laughs> <laughs> man du ma bëreeg moom kële da see bokk kii kii mbokk kii liw gi dee magam nijaayam la xaw ma papam xaw ma lan te ànd ak man xam nga xam nga nit du juum du juumat kii bëri naag jarbaatam mu pare famem mere ko ndax làmb kon loolu du ma bëgg a famem merewaat ko ndax làmb moom kal ko moom nijaayu kan la imposé bi ma koy daan mm-hmm. yaay imposé dem na du wax ak moom bu dajee si kër famille bi du ko tudd dem ba koy jaxase ak seen seen mais làmb du làmb yi nga sport euh, pël da koy wax des fois yi nga sport mun ngeen bokk benn néeg di fanaan ngeen dem bëre yaa ngi lamb moo demee noonu di nga yàggu yi lamb dàq ko bële bëree lamb ju neex la bële bërut lamb ju neex la te xam naa doo leen bëree fii ah, mën nga tiim fii si micro naan du ma bëree guy mais tey gëm naa ne gëm bu la Pape Abdou Fall session ne la Moussa 100 millions yi nii yaa guy yi waaye déedéet waaye nga jël ko waay. laagal peer rek laagal man amul problème yooyu man war na yàlla amul problème mu xaalis non man lu bëgg ñu ma koy defal côté boobu ma si bëgg a wax damay nuyu bu baax nuyu monsieur le maire Babacar Mbengue honorable député autorité yi Dakar yaraax bi yëpp man li tax du ma bëgg wax si côté boobu xam nga. man kay moom moom instant moom ba léegi nangul sa sa problème xaalis dama wax nii dama wax ma ko problème xaalis. problème mu bëre laa indi ak xam nga xaalis neex na. mais man li tax soxla ma xaalis ñii ma nekkal.